سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لن دلن زيارة دلن بال حقة دلن بال دنيان يالا سبحانه وتعالى ولن يجقل دلن دوكيل شيء fan yu mag yi ñu génn ak fan bi ñu génn nga xam ne mooy bisu tabaski ak juróom-ñeent fan yu ko jiitu woon yëpp di leen ci ndokkee lu baax di ñaan yàlla subhanahu wa taala mooy ñu fekk at yu bëree bëri te at mu ñëw mu gën ñoo xiir ci boppam xiir ñu ci bëgg ko ak sax ci li nga xam ne moom la bëgg ak ci yoonu njub topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sopp ko te topp ay jeexitam boobu jeex takk di leen dokkeel yéen ci bisu màgg bi nga xam ni mooy bisu ajuma di sangu bisi suñu xutba tey dañuy def ab taxaw seetlu jàngat ci benn xadis bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon kenn ci saxaaba yi kuñ naan abdullah xam ne daanaka rakk la ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am bis mu wax dénk ay baat seydna abdullah ibn abbas ne ko yow sama doom wala yow xale bi kaay ma dénk la baat yi bu defee ñu jàngat xadis bi dafa ni ko ya gulaamu inni uallimuka kalimaati ixfad illaha yaxfadu yaxfadka ixfad illaha tajidhu tujahak ida saalta fasal illah وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحف سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه عندما dafa منك di dox ci ginnaaw yeen tib sallallahu alayhi wasallam wala dafa war ci war way nek ci ginnaawam mané ko kay ma sala bati yow xale bi fekk bobu tu tànk la lan yan bati la ko wax ne ko ihfadillaha yahfadka na nga wattu yàlla yàlla wattu la ñaarel bi mu ne ko ihfadillaha tajrihu tijahak nanga wattu yàlla boko defé da nga fekk yàlla sa karam fo mën ta jëm yàlla dana la fa jitu ba dimbali la mu tek ci ne ko idha saalta fasalillah boy ñaan na nga ñaan yàlla wa idha staanta fastain billah booy sàkku dimbal ci loo xam ni mbindeef nang ko na ko sàkku ci yàlla من واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك mu ne na nga xam ni umma bi yëpp xeet bi yëpp bu ñu dajaloo woon def coalition ànd ñoom ñëpp bëgg laa jariñ dara bëgg loo xam ne bëgg nañ la koo defal ci seen intérêt ngeen nga bëcc mënuñ laa defal lu dul la nga xam ne moom la yàlla dogal ni da nga ca jot buñ dajaloo woon ñoom ñëpp bëgg nga nekk ko xam ne ab richard ngay doon bu riche ngay doon duñ ko mën mukk lu dul la xam ni moom la yàlla dogal ci yow sa wërsëg na mu war a toll ci misaal من ولو اجتمعوا ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك بني دجلو نيو نيب نيت اك سيني فخه اك سيني بون بون ني نيو بوغ لا ديك ديف لو خامني نياو تيف لا بوغ لا لو نينا مونو لا ديف لو لا خام لون لا يالا دوغال سي ياو مني كو نغا خام دي رفعت الاقلام وجفت الصحف خالي ما جيغا خاندي مودن بند دوغالي يالا بند نا بند نا سي با باري yëkëti nañ ko tegootul ci kayit bu doon ci misaal tegootul ci kayit bu muy bind te fooy ba nga xam ne ca lañ doon bindee bu doon ci buñ nañ ko mën a déggee ñun bu doon daala nga ni daaja waw na bu ko defee xadit boobu dañu bëgg a yi daal di jéem a faram fàcce tuuti bu yonent bi sal allahu alayhi wa sallam waxee abdullah ibne abbas ne ko ihfadillah yow sàmmal yàlla wattul yàlla boo ko déggee ci dégg-dégg boo ko déggee ci firi baat bi ci kaw noonu rek boo ko firee noonu rek pour nga dégg njariñ li du du du yomb ndax yàlla bi la bind nga ne yow wattul yàlla sàmmal yàlla kon nga xam ne am na leneen les ci namm mooy leen ci mooy sàmm li nga xam ne moom mooy ay xududa xudud mooy ay limite bi ko jël ci misaal suñu réew yi bu ci nekk dafa am ay xudud mooy frontière xam ne ñun dañuy Sénégal dañ koo limité ci wàll wi Mauritanie moo ko fa féete wàll wi Mali moo ko fa féete wàll wi ñaari Guinée ñoo ko fa féete beneen wàll bi géej gi moo ko fa féete nga xam ni wàllu bu mu ci dem ba yam sa fa rek nga xam ne foofu la sañ-sañam yam suñu président de la république ku mu doon bu ñëwee sañ-sam sañ-sañam fa mu yam mooy fi nga xam ne fa lañ limité réew mi ay dogalam foofu lañ yam noonu yi nga xam ne réew yi dañoo am ay yoo xam ne ku ci nekk sa sañ-sañ foofu la yem yàlla it dafa am ay limites yoo xam ne daf koo jox jaami ku ci nekk mën la limite bii bul ko jéggi buñ ko doon joxee ci li nga xam ne mooy limites yi ñu yàlla tegal mu jëre góor yàlla nee na ko may naa la nga am ñeenti soxna ay góor bul ko weesu kooku limite la barrage la yàlla tegal ne bul ko def dépassé bu dee jigéen mu ne ko li la may sa awara mu feeñ mooy sa kanam gi ak sa ñaari loxo yi kooku barrage la boo xam ne yàlla tegal na ko ne ko bul ko dépassé noonu buñ ko toppee waaye na nga sàmm li nga xam ne moom mooy ay xàq suñu borom yàlla dafa am ay xàq yoo xam ni moo tax ci digganteem ak jaam bi yéen saa dañ ko dafa mës a laaj benn saxaaba na ko ndax nga lan mooy xàq yàlla ci jaam yi mu ne xaw mu ko def lii xàq yàlla ci jaam mooy ñu jaamu ko te buñ ko bokkaaleeg dara lii suñu xàq ñun lii xàq yàlla ci ñun. mooy ñun dañ ko war a jaamu ba pare duñ ko bokkaale dara duñ ko yemale dara jaamu gi ci façon yu wuute nag moo xam ci ñaan gi la moo xam ci sujjóot gi la moo xam ci yaakaar gi la moo xam ci ragal gi la buñ ko bokkaale dara buñ ko gam-gamle dara ci lu mu mënti doon nag kooku xàq la boo xam ni yàlla moo ko am ci ñun kooku it moo ne ko nanga ko sàmm nga dégg ko ci xadis beneen bi mooy ay digalam dafa am ay digte yoo xam ne yàlla dañu koo jox ay ndigal am yoo xam ni dafay war bis bu nekk juróom yoon lu mel ni julli am loo xam ne dafay war ci at mi benn yoon lu mel ni koor wala lu mel ni azaka boo ko manee wala lu mel ni aj màkka am yoo xam ne nag moom amul waxtu amul heure saa su ne da ngay takkoo ak moom muy fas sa xol bii ni amul benn buur bu ñu war a jàmm ku dul yàlla te doo ko yemale leen da xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko yónni kooku ay ndigalam la yoo xam ne dañu waaye it mu am ay yoo xam dañu ko tere mu ne ko tere yooyu it nanga nga fexe ba sàmm ko ba nga xam ni yow la mu la tere na nga def sa kéemtalaay kàttan ba doo ca yegg wala boo juumee ba yegg sa ndax mate gi doomu aadama na nga fexe nga gaawantu nga tuub nga dellu ginnaaw tere yooyu mën nañ ci jël bul fen ne jullit du fen jullit du sàcc jullit du jëw jullit du jaxase ay nit jullit du naan sàngara jullit du ànd ak ci sëy koo xam ne lewu ko parce que yooyu ay tere la yoo xam ne yàlla dañu koo tele tere ñun it ñu war a sàmm tere yooyu suñu kéemtalaay kattan ba duñu ko def <coughs> kon nga xam ni kon bu ko nee ihfadillah na nga wattu yàlla kon yooyu nga ciy déggee ma wattu ko ci li nga xam ne moom mooy ay xàqam wattu ko ci yi nga xam ne moom mooy ay limitam yi nga xam ni barrage yoo xam ne tegal na la kon waroo koo dépassé wattu ko ci ay ndigalam yoo xam ni dénkaan dénk na la digal na ko nga teg nga wëy ci nga sax ca ay wattu ko ci nga xam ne ay tere la yoo xam ne tere na la ko nga fexe ba moytu ko sa kemte lay kàttan yàlla loolu mel noonu lay tagg ci alquran bi mu melal na ba pare mu ne hada ma tuwaaduuna li kulli awwaabin xafiid mu ne lii de na jii de mooy li nga xam ni moom la ñu teg moom la ñu daal ñi nga xam ni dañuy dellu seen borom saa su ne mooy dañ koy bàyyi xel waaye dañuy wattu li nga xam ne yàlla wattuloo na leen ko wa man xashiya arrahmana bil ghayb wa jaa bi qalbin munib mooy ko xam ni ragal na yàlla te gisu ko ñun ñëpp ku ci nekk kenn tegul get yàlla waaye da nga ragal ragal gi nekkul ni danga comme ni ngay ragalee gaynde ne boo ko gisee mu raalit mu fàdd la déedéet ragal gi mooy da koy bàyyi xel ci looy mun ti def da ngay bàyyi xel suñu borom mu nga teg ba mu ngi la fuglu loolu day ne ba mujj gi dafay jur kersa sa diggante ak sa borom am na yoo xam ni da nga koy bañ a def da nga koy maytu ngir kersa goo xam ne da nga ko am sa diggante sa borom nga gis ni kon loolu moom mooy xifdul aam maanaam yi nga xam dañ ko war a wattu ci buñ ko généralisé bu ñu boolee yow yëpp loolu lay tënk waaye bi bi mu tuddee am bi bu mu ko généralisé ba pare dafa am yoo xam ne daf koo détaillé nag am yoo xam daf koo set bi ci biir wax ne nañ ko ko wattul benn ci yooyu bi njëkk mooy julli yàlla mu ngi wax ci alquran ni xaafidu ala salawaati wa salaati alwusta mu ne na ngeen di wattu seeni julli juróom nangeen ko sàmm fexe te joxe ni nga xam ne noonu la waree joxe ko bi ci njëkk mooy ci julli ko ci waxtoom beneen bi góor da dem war a julli ci jàkka ja bu amoon ngànt bu amee ngànt mu jullee ko ci këram waaye fexe ba julli ko ci waxtoom boobu moom farata bu fekkee ni julli wuloo ko ci waxtoom te amuloo boo xam ne la ko teree def dafa am ay bakkaar boo bakkaar boo xam ne dafay tegu sa kaw بيالي محتوى القرآن دي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون من خوريك مبغل نيالا جيغا خمني داني ساقاني سين جل الله بن عباس بيغا خمني صلى الله عليه وسلم مولو عجر الحديث بي لأن اللولة نيتي يالا نمو مو جيغا خمني داني ييخي جل أنا عم داني دنيو جل بوقت بجن كون نيكا جل تي أرد تي أرد تي أرد نكنا لو خمنا لو غراولا ñu bàyyi xel ci xaw ci li képp day kàttan fexe di ko joxe ci waxtoo kon julli googu ndax moom mooy li nga xam ni mooy rendez-vous bu ñu am suñu diggante ak suñu borom bis bu nekk danañu ko am juróomi yoon nga xam ni dafay dafa lay war yow dafay gàll solos fii ak yaa ngi am nooyi fii yaa ngi nekk ci kaw suuf di nooyi julli gi di la tegeeku mukk loolu ni sax da nga teqalikoo sa xel maanaam wératuloo dof nga wala jigéen joo xam dafa am ngànt wala xale boo xam ni majeuragul te kooku sax dañ koy yóbbu ci jàkka ja di ko tàmmal julli waaye fii ak yi amul ak nit lu mu feebar feebar feebar julli dafay gàllu ci loo bu feebaree bu mënul taxaw ñu ne ko na tëdd na toog julli mu mënul toog ñu ne ko na tëdd julli nga xam ne kon julli du wàcc jullit mukk amul lenn loo xam ne mooy tax mu wàcc jullit bi lu dul ni taqali ko xelam wala am ngànt jigéen wala nekk xale boo xam ne majeur ko kon yu dul yooyu rek ñoo xam ne jullit bi julli du ko wàcc moom ñaareel bi mu ne ko mu ne na na ngay sàmmwante ngiit laab laab googu moom mooy jiitu julli la salaata liman lam yatawadda nit bu fekkee ni amul laab julli gi mu julli na ko jàpp ni mouvement yi muy defee rek waaye amul njëriñ kon laab gi moom mooy jiitu nga neen nanga fexe ba sàmmanteeg laab googu bu fekkee ni danga am tojug jàpp goo xam ne jàpp mooy waral nga dem julli nga jàpp bu fekkee loo xam ne sangoo moo koy waral nga sangu balaa ngaa julli waaye làngoo yi na nga fexe ba sàmmante ak moom waaye nga fexe sax ba mu nekk ci yow habitude nga xam ne yow sangu war na la wala waru la am nga jàpp wala am noo jàpp julli taxaw na wala julli taxawul nga fexe saay su ne lu ci ëpp ci sa temps nga yor jàpp yam saay sallam nee na laa yuxaafidu ala alwudu illa mumin nee na ki nga xam ne dafay takkoog jàpp nga xam ne foo ko fekk mi ngi takkoog jàpp nee la kooku moom mooy jullit te loolu kaaraange la kaaraange la ci jullit bi am na ñenn ci mag ñi ne na nit bu fekk fii mi ngi tukki bu nekkee ci yoon fii mi ngi yoon jàpp yàlla dana ko sàmm ci yoon boobu mu nekk bu mu yegg fu mu jëm maanaam koo xam ni dafa yor jàpp ci oto yàlla dina ko mën na koo dimbali defal ko sutura ba accident du am ci yoon boobu ñetteel bi mu ne ko mu ne li nga xam ni moom mooy seeni ngiñ seeni waat bu ngeen waatee na ngeen ko respecté boo jël ci misaal da nga naan boo jëlee engagement engagement wu ne damay def dara ba pare boo la ak waat na nga fexe ba waat googu nga xam ne waat googu na nga fexe ba respecté ko waaye bu mu nekk loo xam ni da nga amoon envie rek wala mboota waxtaan waa neexoon rek wala nga nekkoon koo xam ne daal bëgg nga rek nga jël ko déedéet moo tax dañ naan décision kenn du ko jël ci jamono yi mer waaye kenn du ko jël ci jamono yi contentement dangay ngay bàyyi fa nga xam yaa ngi ci diggante bi nga xam ni meruloo loolu kontaanoo loolu bu ko defee nga dal di doog a jël sa xalaat sa décision mooy waral bu fekkee dem nga ba ëllëg ak rëcc mënu ci am ndax da ci xalaat da ci na ko saytu balaa nga koy jël beneen bi mu ne it na nga sàmm amaana yi mooy dénkaane ni ku ci ci ñun am na loo xam ne yàlla dala koo jox muy dénkaane dénkaane nekkul alal kese alal gi dénkaane la ci yow koo xam ni noo ko jëfandikoo da nga taxaw suñu kanam borom keroog layoo ak moom wax fan nga ko jëlee ak fan nga ko dépensé doom ji nga xam ni moom la la jox dénkaane la boo xam ne da koo jaarale ci yow mu ñëw ci kaw ak mu ñëw ci kaw suuf dénkaane gum la dénk mu am loo xam ne dalaa war ci ci doom ji nga war koo dundal war koo sàmm war koo yàpp war koo jàngal taxawu ko kooku amaana la boo xam ne ëllëg da nga taxaw suñu kanam borom layoo ak moom ndax li nga xam ne moo la ca waroon ndax def nga ko waaye bu fekkee ne yàlla natt loola amuloo njaboot wala amuloo wërsëg nga ne ah kon de man amoo amaana cër yi la yàlla jox sax bi amaana la loxo bi dénkaane la bët bi dénkaane la nopp bi dénkaane la ndax ku ci nekk ci ñoom ëllëg inna sama wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu masuula bët nopp xol ñoom ñëpp ëllëg yawmal qiyaam dañuy taxaw ju leen di laaj maanaam yow doo tontu de cër yi ku ci nekk moom mooy tontu ku ci nekk di wax nan nga ko téye nan nga ko doon jëfandikoo ci kaw suuf ndax yaa ngi ko doon def yaa ngi ji doon def ci moom li nga xam ne moom la yàlla bëgg wala déet loolu da nga taxaw suñu kanam borom nekk loo xam daf koy lay moom kon mu ne amaana na ngeen fexe ba sàmm ko bala nga xam ne moo leen ci war bu nekkee da ngaa nekk ci bërëbu liggéeyukaay ñu jiital la fa nga xam ne ñi nga xam dañ leen a jiite amaana nga ci ñoom amaana leen ci yow maanaam dañ laa dénk am na war a xam ne moom nga war a jëflante ak ñoom noo xam noon nga war a doxalee ak ñoom da ngay rendre compte fii ci àdduna waaye da ngay rend compte ëllëg si suñu borom nga xam ne nit ki mboolem loo xam ni mu ngi koy def ñu jiital ko ci wala jiitaluñ ko ci liggéey la wala lu ci mënti doon na xam ne loolu amaana la boo xam ne da koy layoo keroog suñu kanam borom juróomeel bi nga xam ne ci ngi ci ihfadillah ba léegi mooy cër yi ñu waxoon sànq cër yi gis nga ku ci nekk ci ñun cër bi nga xam ne yàlla dala koo jox dala koo dénk nga xam da nga caa war a koo war a sàmm wattu ko ma nga fexe ba tënk ko jatt ko ci li nga xam ne moom mooy bëgg-bëgg suñu borom nga fexe ba mu nekk ci loolu bu fekkee nii léegi-léegi ak matadik doomu aadama dugg na la ba mu jàdd ba mu def leneen loo xam ne defuwul nga fexe ba fexe ba jubbantiku maanaam fexe tuub fexe jubbanti cër boobu fexe tënku ci yoon bi nga xam ni moom la yàlla santaane yàlla mi wax ci alquran ni la aflaha al muminuun mu ne jullit yi texe nañ jullit yëpp texe nañ ñu naa ah, mu commencé nag di wax ñeen jullit ñoo texe alladina hum fi salatihim xashaun ñi nga xam ne seen julli bu ñuy julli dañuy toroxlu mooy dañuy bàyyi xel seen boroom ci biir julli ci mbokk yi ñoo xam ne julli xam nga lan mooy ci lan moo la ci jëriñ li nga xam ni yaa ngi koy teewlu yàlla mouvement yi dafa am julli ju baax julli yu wér ak julli juy nangu julli ji wet ak julli ji nangu bokkul julli ji wet mooy julli joo xam ne ba nga koy def jàpp nga yor nga njàpp taxaw nga foo xam ne fu laab la jublu nga penku julli nga ci mbooloo mi wala julliwoo ci mbooloo mi julli nga ci waxtoom kooku mooy julli ji wér léegi nag mu des julli ji nangu julli ji nangu nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na jullit bi li nga xam ni moom laa am ci julli mooy la mu teew teewlu kon nga xam nit dina julli ba pare du ci am dara bu fekkee da nga teewlu 30 secondes xamal ne tuyaab ji toll noonu bu fekkee une minute la xamal ne ngay am kon lool bu ko defee ñu bàyyi ci xel bu baax tàmm ko baax na lool badil ko baax na lool waaye bi ëpp doole li ci ëpp doole nag li ci gën nag mooy nga fexe ba booy julli nga koy teewlu teewlu gi bokk na ci li lay gën dimbali mooy la ngay wax nga def fexe di ko tekki di xam li ngay wax lan la li ngay wax yaa ngi bàkk yàlla ci biir julli yàlla mi ngi wax ak yow léeg-léeg ci biir alquran yi ngay jàng wala tasbihaat yi ngay def subhaana rabbiyal azim subhaana rabbiyal aala yooyu ngay def yaa ngi bàkk yàlla bu ko defee yooyu bu koy yëgal sa xol bi loolu moo lay may nga mën a teew teewlu suñu borom fuglu fuglu ko màggaay bu ko defee loolu mooy tax boo jugee ci julli gi mu mën am ak yiw goo xam dañ la ko jural waaye bu dul rek julli gi naan bu ëllëgee buñ koy réglé lépp baax na xamal ni mooy julli ji ah bu baaxee lépp baax mooy julli joo xam ne am na ak li bu fekkee ni du julli boobu nag julli këpp këppal la wala du këpp këppal sax yaa ngi yéexantu waaye ànd ak ànd ak teewlu nga xam ne julli jooju du la jëriñ da nga xam ne noonu la war a jëriñee kon ñaareel bi mu ne ko ihfadillah yahfadka ne ko sàmmal yàlla yàlla sàmm la léegi nag ñi ngi ñëw ci yàlla sàmm la gi nag mu ne ko yàlla sàmm la mooy lan mooy yàlla dana la sàmm ci sa diine dana dimbali ba nekk yow fekkee ni li nga xam ni wax na ko ci ay yi nga xam yi nga moom nga war a sàmm ci sa cër yi ci sa ndénkaane yi ci yeneen yi nga xam ne wax na ko lim na ko yëpp boo ko ci sàmmee mu daal di lay dimbali nag sàmmal la sa diine sàmmal la ko ba nga xam ne yow danga nga dee ci iman ci ngëm yàlla waaye mu sàmm la sàmmal la diine ba nga xam da nga danaa defal tawfiq ba nga bokk ci ñi nga xam ni dañuy wommatu ndax kat ñi jullit ñi dafa am ñoo xam dañoo wommatu am ñoo xam ne wommatuwuñu ñi wommatu mooy ñi nangu tey jëfee ndigal ñooñu lañ seen jullit mën a jëriñ dara ñi nga xam ni wommatu nañ te nanguwuñoo jëfee ndigal nag ñooñ seen jullit gi du leen jëriñ dara yam saay nee na sama xeet bi yëpp danañ dugg aljanna ba mu des koo xam ne ku bañ ñu ne ko kan mooy ki bañ mu ne ku ma topp dana dugg aljanna ku ma toppul nag mooy kooku mooy ki bañ ki topp yonent bi sallallahu alayhi mooy yaa ngi fexe di ko roy ci li nga xam ne moom lañ la wax nga roy ko ci moom ci say farata ak say sunna fu nga fexe ba topp ko ci nee na yooyu boo ko defee dana la jural ak aljanna ëllëg mooy war nga mën a dee ci ak ngëm yàlla mooy tax nga mën a nekk koo xam ne yow dangay nekk ab pratiquant dëgg ngay doon maanaam koo xam ne da ngay jëfee nekkoo koo xam ne dangay ngay woote ak jullit mu yem ci làmmiñ rek dafay nekk loo xam ne da nga koy fas sa xol waaye ànd ak di ko pratiquer ñaareel mi nee na mu wattul la sa àdduna mu defal mu nekk leen nit koo xam ne yow ku dal nga ku ngay doon maanaam jafe-jafe àdduna mënu la fëkk ak lu mu mënti toll ndax yàlla moo def ci yow ak dal sakina yàlla moo ko def ci yow ndax nangoo wommatu gi nga nangoo wommatu di nga xam ne moom mooy dénkaane suñu borom ak sàmm li nga xam ne moom mooy xududam ak mi nga xam ne ak ay ndigalam la bàyyi ay tereem yàlla moo la defal ak naan ak dal ba nga xam ne yaw adduna daanaka li ciy jaaxal du bari waaye dana la sàmmal sa xol bi ndax xolkat moom mooy lépp xol bi ngëm-ngëm fa lay mën nañoo wax tricher ci làmmiñ duñu feeñ mën nañoo tricher ci jëf ndax mën nañoo ñëw julli ndax mbooloo mi wala julli nga gis ma waaye xol moom mënul tricher xol moom li nga bëgg te gëm ko rek moo fay nekk bu fekkee nag sàmmal nga yàlla yi nga xam ni moom la wax ne dana la dimbali ba sàmm la sa xol bi te nga xam ni xol ñu ne yàlla day wëlbati xol comme ñun suñu ñaari baaraam nuñ koy wëlbatee maanaam nit ki mën naa xëy léegi nekkoon koo xam ne ko jàmbaare la xëy léegi ak kufru dugg ko léegi wetti wala mu nek ko ko xamni kéfer la xëy rek yàlla wëlbati xolam mu nek ko xamni ko kuy tuub dugg ci l'islam la motax tax yéen saa sallam daan bëri lu muy ñaan naan muqallib al qulubi thabbit qulubana wala thabbit qalbi ala dinik yow mi yàlla yow mi nga xamni ne yaay wëlbati xol yi yàlla nga saxal suñu xol yi ci sa diine ci yàlla yéen saa sallam daan na ko bëri lu mu koy ñaan waaye samal la sa xel ma nga nek ko xamni xel mu ñaw nga yor leg legi da nga bëgg def dara sax yàlla mo leen inspirer jox la xalaat boo xam ni boo ko jëfandikoo rek mu nekk xalaat mucc ayib loolu lu koy waral mooy nangoo wommatu ji da nga xam ne moom suñu borom santaan kon boobu mooy ñaareel bi buñ ko waxtu mooy jege si mais gën na yaatu lool xam ne mën na dana la sàmmal sa yaram dana la sàmmali li nga xam ne moom mooy sa nga xam ne ruux gi koy alimenté moom mooy jaamu yàlla ak mbooleem sa cër yeeg mbooleem li nga xam ne da koy yëg-yëg sa yëg-yëg la moom mu sàmmal la moom yàlla kooku moom mooy yaxfad ka ma waxaat ku ne ko ihfadillaha tajidhu tijaahak ma ne ko nanga nga wattu yàlla na nga sàmm yàlla nee na loolu bu ko de boo ko defee da nga fekk yàlla foo dëgmal fekk ko fa foo jublu rek mu yoonu yàlla maanaam nit bu fekkee ni nekk na koo xam ni ku ko suñu ndëgal suñu borom la di bàyyi xel suñu borom ragal yàlla ci li nga xam ne moo feeñ ak di nëbb ragal yàlla ci diggante jëflante gi ma jëflante ak jaam yi di bàyyi xel boromam digganteem ak moom digganteem ak njabootam yépp nee na kooku yàlla dana ko defal ba nga xam ne moom lépp loo xam da ciy yëngu rek yàlla lay doon maanaam moo tax man ko ihfadillah tajidhu tijahak nga xam lépp loo xam yaa ngi ciy yëngu rek yow la nga cay seenu mooy see suñu ngërëmu borom yàlla moo lay defal tawfiq boobu yow doo def lenn loo xam ni amoo ci lenn loo xam ni maanaam yiw yàlla nekku ci moo tax ñu ne léeg-léeg yéen borom doomu aadama nit ki nitu intérêt la nitu intérêt la ci leen mu ne lépp lu muy def rek am na lu mu cay seenu yaa ngi julli yaa ngi woor yaa ngi joxe alal yaa ngi dem makka da nga koy def xaaroo ci nit ñi dara waaye yaa ngi xaar ci yàlla leneen waaye intérêt boobu nag moo baax nag maanaam nit lépp lu muy def na fexe mu nekk loo xam ne daf koy jural yiw yiw suñu borom lu ko ci nit ñi waxee nag moom bu mu ko ñor moo xam dañ koo tagg moo xam dañ koo ŋàññi buñ ko na na fexe yemale tagg gi ak ŋàññi gi li ko war a intéressé mooy ndax yàlla gërëm na wala gërëmul yàlla gërëm na wala gërëmul nag bokk na liy dimbali nit ki pour mu xam comme déet ndax juboo na conscience am léegi nit sa conscience du la du la trahir du la tromper mukk li nga def dara mu wax ak yow na lii nga def de defuwul mu xam ne sa jubluwaay bi yiwul sa jubluwaay bi sellul mu yedd la kooku nag moom dee ko bàyyi xel bu fekkee feek yaa ngi jubook moom rek di nga mën a jubook sa borom bu fekkee ni jullit nga boo xam ni bu tënku ci ndigalu suñu borom ñetteel bi mu ne ko booy ñaan na nga ñaan yàlla maanaam booy ñaan loo xam ni xaajo la wala la ngay tàllal loxo di ñaan na nga ñaan yàlla ndax yàlla ya moom moo kii moom lépp moo am lépp te du jeexal te doyewu ko dara te bu ko doon maye du tegle milliards at di ko du jeex mu du wàññi dara ci nguuram gi mu ne kon na ngay ñaan yàlla ba pare na nga daal di sabablu mu ne ko booy dimbaliku na nga sàkkoo ndimbali suñu borom mooy dimbaliku booy sàkku dimbal dimbaliku boo xam ndimbal boo xam ni loxo doomu aadama yeggu ca ndimbal boo xam ne loxo doomu aadama yeggu ca ni ki yaakaar yaakaar yàlla rek dañ koy def ci noonu ak ràmm ak mucc yàlla rek moo mën a muccale ak gudd fan wala ak wërsëg loolu yàlla ci loxoom la ne bul ko yaakaaree keneen ci ku moom yàlla bu fekkee fii yaa ko yaakaaree leneen ci lu moom yàlla rek yàlla daan la bàyyi ak loolu daan lay seetaan kon nga gis ni xadis la boo xam ni dafa làmb ay njëriñ yu bëree baree bëri yoo bu ñu ko jëfandikoo bu ñu ko jëlee appliqué ko suñu dund mën nañoo dimbali su lu bari nga xam ne loolu mooy firnde li yàlla wax ci ci alquran ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana maanaam am ngeen royuwaay boo xam ne bu rafet la bu mat lëkk bu mat sëkk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii ak ñu ngi koy topp di jëfe li nga xam ne moom mooy ay dénkaaneem ay recommandation di fexe di ko topp di ko roy ci ne nga xam noonu la daan noonu la daan jëfee ñun danañu mucc buñ ko fekkee bàyyi nañ ko nag jël beneen yoon bu dul moom dañu xam ne da ngay tardé fi fu ñuy tardé mooy buñ demee ba ci biir xam ni yoon bi ñuy jël du moom ñu daal di weññee ko jëm ci moom waaye nag am na beneen boo xam ne buñ ko jëlee mu alkande la ñuy mujjee la ñuy la ñuy mujjee mooy bu fekkee ne jël nañ beneen yoon te fas yéene wu dellu si ñëw ci yonent sallallahu alayhi wasallam dañ xam ne yoon bu alkande rek la ñuy la ñuy mujjee yal na yàlla musal ñu yal na yàlla defal dégg toog yàlla sallallahu alayhi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa salaamu alaykum wa rahmatullah احمديه هي سنتيدي الجمل احمديه لا فيزيون فيتور